va plus nga xam ne lay cosmétique moo ko indi moo koy jaay fii ci réew mi euh, gërëm également établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère gërëm batterie automobile Sisa gërëm ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy euh, euh, savon créole optique vision ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax noonu suba dinañu kontaan incha allah suba moom partenaire yi laay toogee ba sama xool sedd ñu ngi woon Italie waaw foog naa ni euh, am na luñ ci wax. waaw kay yëmb la ñu mooy waa ji doon wax ne benn frère la benn maire jiiñ viol. Mhm. ba ñu tëj ko. bi muy expliqué démb mi ngi yemoon ci bi ko maire bi ne dinaa la tëjlu. dinaa foofu la yemoon. tëj loolu ñoo jëkk mu yeggale. beneen jour mu jël fasam mi mu yeew ko si wetu mbokkam yi benn bi mu géyee mbokkam mbokk bu mu ji mu ne bi ah sa fas yi bu ko fi yeew. mu ne ah fii laa koy yeew bu soobee yàlla sama rakk bi guddi la jaaree foofu dem jël moto bi dem si àll bi ndafa daa taaloon matt si la fekk maire bi mu ngi yeew foofu bi mu ngi yeew foofu fasam maire bi xam na ne jàll na ak motam si guddi la de maire boobu xam na ne bu xam na ne bu fekkente ne nekkul foofu maire bi maire bi ñemewul dem parce que ñemewul àll bi mais sërul noonu nag dëkk bi maire bi xam na ne lu muy lu mu koy fexeel maire bi xam na ko. mu fekk sama bi di tuxal fas yi mu ne ko bu bu ko fi tuxal mu ne ko ah fa sa fas yi mu ngi lekk sama mbokk mi te fii nga ko yeew mu ne fii laa koy yeew après sama rakk bi ne ko ah man de dama lay ñaar rek bu fekkee ne ngeen bàyyi naa la nga bàyyi ma rek te yàlla tax te yaa ngi nekk fii dëkk bi di yàq sama der mais teewul ne man am benn problème man du ma nekk fii di yàq sa der ndax sama gorong, la ndekete lu mu tuxal fas bi neexu mu jóge foofu ñëw fekk sama papa mu laajte sama papa suñu biir kër ñu ne ko dafa dem julli ji mu tëdd foofu si biir kër gi bu mu déggee sama papa rek mu daanu mère bi daanu di xalangu sama papa ne lan la mu ne sa doom moom violé mu ne ko sama papa wax loolu mu ne loolu ñaan naa la ngir yàlla bu ko ko wax ndax sa papa moo ma jàngal alquran bul wax loolu bul yàq suñu diggante mu ne def def maa def maa dóor violé ma loolu la wax foofu maire bi sama papa ne astafurlah bul wax loolu léegi damay woos algaasimu ñu wax seen diggante ndax bu dee loolu am na soo sama papa ne astafurlah ndax loolu am na morom morom yaayam nga xam ne ne maire bi morom yaayam la te et puis gorom la may tax may na ko doom Lagi sama papa bu ma waxee loolu léegi dinaa woo sam doomam bi mooy algasum dina ko woo ñu waxtaan par loolu si boppam moo ko accepté moom sama papa mu daanu si guddi gi bu mu daanoo si guddi gi ñu yóbbu ko hôpital ñu yóbbu ko hôpital mu nekk foofu ñetti fan maire bi bu mu bu mu kër su borom dëkk bi ne algasum def bu gawn violé ndax wax na sama papa da koo violé mu dem si borom dëkk mu ne da ko da koo bëggoon violé xam naa ne am na ñu ko naan boo waxul ne de algasm da laa violé bu duñ ko maire bi changé wax bi après mu ne ko borom dëkk bi nag dinaa ko gendarmerie la wax borom dëkk bi sama papa mom? nekk na ñetti fan mënul wax mu ngi hôpital bi mom si boppam bu mu fa demee xool na ko nii mu romb ko ndekete moom xam na ne lu mu mu dem mu gisee benn jigéen si hôpital bi xam sila la def certificat médical bi nak ne ko na ko piqué tétanos mu ne ko lan moo tax ma lay piqué tétanos mu ne dañ maa jam dañ ma violé te ki ko bindal certificat de médical bi indiwul seede indiwul dara moom xaw ma noonu ñoom ñaar nan la def ñu def ñu dagg certificat médical bi mu daggal sama rakk bi communication après lañ ko jox sama rakk bi buñ leen di atte maire bi ne ko def ma violé xam naa ne nag ngeen jéggal ma wax bi diis na si man lool maire bi génne benn slip mu yëkkati ko mën a fii la ma forcé violé ma léegi bu mu waxee loolu rek loolu nday mer loo xool sama rakk bi door taabal bi nii fu mu nekkoon mu ne loolu day defuma ko maire yaa ngi may tooñ ñu laajte leen ñoom ñaar bu dee ku nekk am na seede ndax ñoom ñaar rek ñoo nekkoon si àll bi algaasum amul seede commandant bi ne ko kon affaire bi yëpp du leeree fi Tamba lay leere nii la demee ñu ne ko summa leen ko mu dugg si biir ñu summi ko ñu yóbbu ko si biir depuis août ba léegi attewuñ ko ba léegi sama rakk bi génnul ma jaaxle lool nag te yàlla xam ne ne maire bi da koo tooñ da koo tooñ maire bi amul leneen lu mu koy tuumal su dul da koo loolu subhanallah kii li mu bëgg mooy. affaire viol yi ngi bëgg doy waar. mi ngi doy waar ñu dimbale ko. waaw. Eh, frère boobu noonu yoon àtte ko. Mhm. enquête ci leeral ko. ñu xam ndax moo defal deful ki ci topp nag moom. Mhm. benn doomu senegal la bu nekk Boston. ci États-Unis waaw. Mhm. fam beneen doomu senegal bu mu ne moo ko tiriyande. Hmm. te ki ko tiriande nee na candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm. Mm, yee président tiriande am foofu président dóorkat rang muy gaaw. question <laughs> yi ñu leen laaj ñu war ko yóbbu fi ñu toll nii ku yóbbu na dem na question yi ñu laaj nii. mais moom li mu ko dóor daa bariwul sax. ñaata déglul waa <laughs> man daal suma problème mooy ak euh, Déthié Ndiaye. Déthié Ndiaye nag nee nañu mooy euh, mom sax momako ma wax moni président UMP et que candidat à la présidence man nak mangi Boston fi wante euh, dama à New York and ak ay partenaires ñu ñu dem consul bi gis euh, consul bi consul bi de dafa am promoteur bu nga daf fi wara ay yu Sénégal di mais forum bi mais monsieur Kio, yow da ma wa, ko ok dina se mais comme mangi Boston te Boston ak New York fait presque 300 et plus cher kilomètres benen weekend end ba mënu ma dem finalement ma am partenaire américain yu nek fofu ben dame. bu mu wax mom mu dem fa tew mom mu dem fa tew bi mu demee le tase ak kii tase ak dëcce waxtaan ak dëcce xamal ko ni ko man sum partenaire ma nga Boston wanté sénégalais la nangam sangam alors da mu jaar may jox numéro dëcce non lañ xamanté ñu commencé di wotenté moom mi ngi New York man maa ngi Boston mu ni mën a grand daal man nu mu mën def ñëw Boston xool foofu kii ndax euh, maa ngi ci yëngu te ay partenaire la bëgg pour Sénégal luñ fa mën a def am na ay maire yu ma fi indi woon ñooñu am na ay ter yu ñuy jaay am na ay terrain am na ay kii ah man de terrain moom su ma yoon nekku ci consort ki mu jóge New York ñëw Boston seeti ma dafa ñëwoon sax pour wut ay contact ay consort ki man ma dem jëli ko arrêt bus bi yóbbu ko comme dama am business fii daal koy yóbbu business ba visitel ko business bi ni ko nekk comme tey samedi la sax suma employé yi nekkuñu fii mais consorté mais léegi nan lay def mooy nañ dem nañ dem reeri invité ko benn restaurant mooy photo bi ma lay yónnee photo Boston bi mooy restaurant ma ko invité woon ñu dem fa reer consort waxtaan ba pare ma jóge yóbbuwaat ko fa mu dal yóbbu fa mu dal su bëgg dimanche aussi waxtaan ak moom jaar fa jël ko yóbbu ko ci biir si mu delluwaat New York ñu jóge fa nag di wax yenn saa intention yi mu am wax ko sumay may xalaat léegi un mois après comme am naa suma xarit bu nekk Paris écrivain Charles Onana Onana waroon ñëw pour euh, kii pour session Nations Unies yi ni ma nag no vraiment kii il faut ñu gisee ma ni ko non non comme weekend bi kii da nga may comme samedi ngay ñëw man samedi bu mu wàccee rek damay ñëw fanaan fa comme dimanche bi ak lundi bi du ma liggéey far ci jour bi de ci wooma ma ni ko mais di donc suma rek man sax weekend bi damay ñëw New York ah damay ñëw non parce que Onana ah da nga xam Charles Onana non c'est mon ami intime consort dafay ñëw quoi xam naa ne comme il est à l'hôtel damay maa ngi kii quoi damay ñëw ak moom consort mais grand kookuñ kii mais non non mais xam nga sax grand man candidat la à la présidence candidat président Sénégal xam nga dama am parti UMP da nga parti ah non je savais pas Ouais, non non ah non non kon kañ yow introduire la avec Charles parce que Charles mom comme moom itam journaliste il est dans sa consorque ok sur madame New York jaar fo jël ko mom and ak Charles ñëw jël Charles ñu ànd invité leen reer ma ni ko non comme Charles mi ngi fi une semaine il faut le voir Charles ni ko mais non non léegi boo amee yow sa programme tu viens me voir comme ça ñu ñëw wax man ma wax la ci sumay idée consorqué alors je le dis mais non non de qui ça fait le compte il faut ñëw gis ko avant muy dem waxtaan ak moom parce que moom itam il est vraiment il est formidable da ok ñu ñëw waxtaanaat consort man mu bàyyi leen fa le lundi ñibbi siwaat Boston deux semaines ci ginnaw ni mu ma grand dal dama am problème man problème non non c'est que xam nga dama wara ñibi pour parrainager et consort ah ok est le problème nak non non suma carte bancaire bi mom mo expiré mo expiré alors où est le problème légui pour suma billet bi j'ai besoin de 500 000 mille xalaas ko sama carte mo expiré té pour billet retour j'ai besoin de 500 000 Mhm. déglul waa ah 500000 est-ce que am nga 500000 wa amna 500000 mais mi nga fële Sénégal 500000 mi ngi Sénégal est-ce que c'est sûr c'est sûr légui 500 man bon, ma la arrangé qui. est-ce que 500000 yooyu bo déwé man nga ma joxal net? non non man samedi lay dem dimanche ma egg Bon, moi waxee nit lundi ma yobul ko 500000 ok kan lay jox ki mais non dama bëgg rek ki nga kii quoi parce que man dama ko bëggoon jox chèque sax mais néna du accepter chèque bi mais. Euh, dama lay jox numéro borom agence bi ak turam nga yónnee ko kii ma ni ko wax ah, ma defal ko lan virement bancaire non non attends ma woo ko mu woo ko ñëw mooy audio bi ma la yónnee bi ma yónnee ni ma non non grand kii nee na du jël kii quoi mënul def virement bi mais il faut mu nekk Western Union mooy audio boobu ma la yónnee ma ni ko ok léegi kon bàyyil ma yónnee ko ko Western Union yónnee ko ko Western Union daam bi ma ko yónnee aussi mooy tur bi ma la yónnee ak numéro téléphone am Ah, Lèk, bi mokou yonè Weston yon, Weston yon, bi mokou yonè osi rousi bi mòm lalè yonè. Bi mokou yonè Weston yon, yonè nan lè osi ojo binè khamne, mòm lè mò detye wò ni mò wà gran mersè. Lè, djot nò kon, nenè djot nò kon. Yonè nan, bimko, djote osi yonè kou biye bi, yonè nan lè mòm detye bi, bi mò yonè ni mò. Djot nò kon, gis nga sa gran, biye bangne, yonè nan mò kon. Ok, kon kènyè wò gen nan, bou mò e gen sak di nan lè wò, nan lè lundi ba ma woo ki nga xam ni nee woon naa ko mu jox ko xaalis bi kooku ni ma déggu ko déggu ko waaw non déggu ma ko waa léegi ma woo ko jotuma ko le mardi mo woo ko mu ni ma mu rek décroché waaw mais yow lu xew non non grand dama ñëw feebar waaw mais boo feebaree tam do woote ni sax egsi naa mais dama feebar non sama téléphone bi mang koy soko a taal nii ok alors 500 yi non non léegi jox waaw nga ma numéro téléphone bi gis nako mais maa soko tal téléphone bi mais dinaa ko woo tey dem fa jox ko xaalis bi. ok kon pour toi bien. le mercredi j'appelle ki mu ko war jox ko ni ma ba léegi dégguma man may woo dëcc dëcc do jëlatuma dotuma man kii nangootuma jël. woté woote nanguwuma jël. mais su mais c'est pas possible. mais le gosse là ken xanaa do triant la.

la ma preuve que xaalis bi mom jot parce que mon man na ma ni yónnee ma dara mais yow xaalis ma la yónnee mo dagg bi yam te bu dagguloon billet bi mom du joge fi New York fi lay tag waxuma parrainage waxuma candidat mais fi euh, homeless lay sans abri lay New York ah en tout cas dal suma ma ci ki ok mais bi ma waxe la dame la xamna la dame wonako wax ko ki kérok de ci wonama wa ni mais grand moni ko mais yow suma ana bi waa non non dama amoon dese waaye yow sama yoon xanaa di ma woo. non waa waaw mais kii quoi mais man daal xam naa ne vendredi naa ko lijjanti mais vendredi boobu la am na ñaari vendredi. léegi far dootuma sax jël. waaw ah, wax bu ma woowee dootul jël bu ma yónnee message du tontu message. waaw ah, pratiquement daal loolu mooy le problème. Sénégal nag moom vraiment ku mel noonu. di wax dafa bëgg a nekk président moom moom musiba naaru lay la bala ñuy préciser mi muy wax nañu ak expliquer ko situation bi laj ko ci réponse à moi Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Nous sommes un peu occupés par nos parrainages depuis plusieurs jours. Nous sommes à la rencontre des Sénégalais. Et il me dit, d'ailleurs, pour votre information, nous venons de mobiliser 99 938 <laughs> parrains à ce jour ci établissement waa kër Serigne Touba Fall frère mi ñu indil gam bi di vite fait Optique Vision Plus Sénégal borom lunettes partout et pour tous savon pour baax efficace di savon créole Real Mix Premium Energy Drink United Cosmetics di import export produits cosmétiques made in USA batterie automobile Sisa ak Africa Fly Tour ci assistance visa Andilnu 2G gunge Gaindei, ci Coupe d'Afrique ba ñoo donnons doon may seen émission xalaas NFM